mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetloo ci seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci li ci penc mi seen ndajeem xibaar la bis bu ne ci kàttanu borom bi juróom-ñaari waxtu ci ngoon ñu ànd ceeg soxna Ngone Ngom maa ngi lay nuyu Ngone. Assane ma lay fay nuyu Pape Ngagne ak mboolem téléspectateur yi. ak ñun ci ànd bi Pape Ngagne Ndiaye maa ngi lay nuyu Pape El Hadj Assane maa ngi lay fay nuyoo di nuyu Ngone di nuyu mbokk ànd ak ñun ci télévision Futur Média li ci penc taxaw gëstu tay gi ñu ngi ko jagleel mbokki taalibe yi xam ngeen ni tey la bëccëg gi ñu jagleel taalibe fii ci Sénégal foofee am nañ fa gan Ramandaw la soxna Ramandaw mooy coordonnatrice cellule d'appui à la protection de l'enfance ñoo nga ci présidence de la République lay ñu yegg si ak mbokk yi ci gëstu tay bi lay ñu jagleel wàllu taalibe yi bëccëgu tay gi mooy bëccëg yu ñu leen jagleel Sénégal xam ngeen yalwaan gi jéggi na day ci réew mi gune yi rawatina taxawaalu gi saa ne ci anam yu doy waar jàppale ni nag ne des ci wàllu lii di ay xarafa fuufaaki lu leen sëriñ yi digal ak yeneen moo tax mbedd mi fees jël ak yalwaankat ñenn ñi gis na nag yalwaan googee nga xamante ku ca ne dañ lay lëf rek du jariñ dara buñ ko jàkka mu mën a jariñe mooy li gën laata ñu ciy dalal gan ci wàllu woowu di xamandaw bu cellule d'appui à la protection de l'enfance ci palais ba dañuy ànd ci wàllu gëstu Aminatu Mbaxi Sow ak Mor Xarma Aminata Sow Fall bindee woon ci livre boobu mu duppee grève des bateaux ngir wax ni bépp yëluwaankat na banque loxoom waaye tey ko bëggoon amalaat fii ci Dakar ndax xam dina sotti damay joxe sarax bu baax a baax damay joxe sarax chaque euh, chaque jour souvent damay joxe ay cent francs euh, fukki dërëm des fois ma jënd soow wala yooyu wala suukar di ko joxe di ko saraxe. solidarité boobu lu am importance de société sénégalaise surtout bi nga xam ne euh, dañoo am habitude de vivre dans le communautarisme c'est important la communauté ñun loolu mooy loolu mooy suñu foor askan wi ñu ci gën a bëri bu ñu yeewoo li ñuy njëkk a def mooy ut taalibe ngir jox ko seen sara doxalin boobu nag ku ci mel ni sociologue bi ne dañ ko war a weesu. ne suñu aada ak suñu cosaan am na lu ci baaxul nañ ko dindi mu jeex. du yomb parce que simplement sëriñ bi mi ngi ciy am xaalisam parce que simplement mi ngi loo doomu jàmbur c'est parce que xale bi ca daara ba fa la nekk fa lay fanaan fa lay yendu sëriñ bi moo koy dundal nee nañu leen su ngeen bëggee yalwaan am na ay lieux yoo xam ne foofu lañ leen wax pour ngeen dem fa mooy ci jumaa yi donc nit ki su bëggee saraxee da ngay dem ba ca jumaa ja danga fa fekk ñoo xam ne da nga leen sarax. waaye yenn association yiy xeex ngir jëlee taalibe yi yelwaan ci biir dëkk bi ne loolu du wàññi dara ci seen xeex bi ñu nam ma amal. elle ne constitue pas un pour ça que loolu sax du gàllankoor. li may sàkku rek mooy ñu gën a organiser ni nga xamante ni moom la ñuy joxee sarax yi doomu aadama bu dee day def lu baax ba jël xaalisam di ko dimbalee yenn ci jàkk yi ak këru jaamukaay yàlla yi loolu tamit mën na koo def ngir ñu dajale ko fenn ngir baaxee ko ñi nga xamante ni mooy xale yi yalwaan ci mbedd yi. cet argent là pourra être utilisé. ci noonee ñu ngi tëral ay programme yu jëm ci wàll woowu. j'ai lu dans la presse il mës naa jàng ci kër yi tasukatu xabaar yi ñu ne njiitu réew mi mës naa am xalaatu dajale yalwaan gi gën ko organiser muy xalaat boo xamante ni man dama ko mës a rafetlu ndax loolu bu amee dinañ mën a jëlee taalibe yi ci mbedd yi ñu bañ di taxawaal taalibe bi dañu bëgg mu nekk léegi élève élève buy wuti xam-xam ca daara ja mu nekk daara jooja dañ koy def école suñ ko defee école école bi di joxee xam-xam sëriñ ba fay jàngale ñu def ko fonctionnaire de l'État muy am soldam par weer comme ni ko fonctionnaire yépp amee loolu lañ ci jublu woon waaye nag li tax mesure bi antuwul xam nga ñun sénégalais dañu am esprit yoo xam ne bëgguñu lu bees bëgguñu changement te dañu toll période boo xam ne ku nekk sa intérêt bopp ngay xool. waaye application loi wala texte yi ñu jëmal foofu nag moo leen di tere avancer. nous avons fait des publicités dans la dans la presse. ñun. yàgg nañoo def ay publicité ci kër taskatukaayu xabaar yi pour yee askan wi ne leen li nga xamante ni moo yalwaan lislaam da koo tere waaye lu ëpp ci sëriñu daara yi ñoom dañ ko bañ a dégg. fii ak boobu nag taalibe yi di wëyal di tàllal seeni loxo nit ñi romb ku ci nekk nag di ut loo yóbbu ci sa sëriñ. Aminata Mbaxe Sow ñu koy gërëm mbokk yi yegg si ak yéen ci sunu gan Rama Ndaw la coordonnatrice bu cellule bi taxawu lépp lu jëm ci karange gune yi ca palais ba dalu njiitu réew mi Rama Ndaw TFM a ngi lay nuyu rafetlu teewaay gi. maa ngi lay fay. Euh, ngir gën a xamee ak seen cellule boobee laata ñuy wax ci gune ak seen situation yéen lan mooy seen liggéey ci nan lañ ko mën a rëddee. waaw euh, merci euh, ñun suñu cellule bi dafa nekk benn cellule boo xam ne mu ngi nekk ca présidence de la li ñuy liggéey bëri na wante mun naa wax ne que nañ ko def ci ñeenti axe euh, benn axe bi mooy euh, dañu jublu ci li ñu naan meilleure compréhension du phénomène mm-hmm. parce que booy tàmbali liggéey ci dara euh, da ngay seet d'abord saytu ko mm-hmm. xool ci ñan ngay liggéeyal ñan ñoo ci nekk ak ku ci li ngay def mm-hmm. donc ci année 2007 defoon nañu benn étude boo xam ne Banque mondiale ak UNICEF ak benn ONG bu ñuy wooyee UCW jàppale woon nañu ci pour ñu xool ci région Dakar commencé Euh, ñaata xale ñoo fi nekk di yalwaan étude boobu nag boo xam ne ne que am na euh, euh, juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer. Hmm. mooy 7800 enfants yi nga xam ne ñu ngi yalwaan ci ci ci ci mbeddu Dakar yi. étude boobu nag wane na ne que xale yooyu téeméer boo ci jël. ñeent fukk yi jóge wuñu Sénégal hmm. maanaam dañu jóge ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër Sénégal hmm. mu nekk dara lu doy waax te ci xale yooyu itam Euh, boo ci gisee dañuy nekk fukki waxtu fukki wato waxtoog ñaar ba fukki waxtoog ñeent di yelwaan ci mbedd mi donc xam nga ne xale boo xam ne euh, euh, bés bi ñaar fukki waxtoog ñeent la nga nekk fukki fukki waxtoog ñeent di yelwaan mm-hmm. loolu xam nga ne xale boobu amul jàngul mm-hmm. donc li ñu njëkk gëstu mooy fexe ba nit ñi gën a xam phénomène bi ñuy jànkoonteel ñu gën ko mën a comprendre mm-hmm. ñaareeli pàcc bi nga xam ne mooy li ñu koy gëstu mooy phénomène u enfance dafa nekk euh, phénomène boo xam ne structure yu bëri ñu ngi ciy liggéey boo seetee rek ci gouvernement bi mun nañ wax lu ëpp fukki euh, département ministériel mhm. ñu ngi ciy liggéey am na itam ONG yi association yi organisation internationale yi tamit te loolu dafa def euh, que dañu war a réunir autour d'un plan national de protection de l'enfance maanaam benn euh, du nekk kuréel sax maanaam benn benn plan lay nekk boo xam ne mhm. ku nekk di nga xam ku nekk lan moo ci sa wàll mhm. ministère bu ne mission régal régalienne ni ñu koy woowee ci nasaraan mhm. yi nga war a def nga mun ko def ci anam yi mu gën a baaxee euh, ñetteel bi euh, mooy ñu ngi ñu ngi Euh, gëstu itam ci sensibilisation bi. Mhm. ak ci euh, communication sensibilisation boo gisee sax bu yàggul euh, dem nañu gisi chef religieux yu bëre. def nañu tuuru Sénégal ku ci neen ñu dem wax la ne que ñun suñuy xalaat mooy xale place du ci mbedd mi ma nga ca daara ja ca kër waajuram wala ca jàngukaay ba. Mhm. donc ku mel ni Serigne Abdoul Aziz Sy Junior jàppale woon nañu ci bu baax. di def loolu yëpp pour ñu ñu ñuy saytu euh, xale yooyu. Mhm. ñu ngi jàppale itam daara yi nga xam ne euh, ñu ngi jël xale yi di leen jàngal ci mhm. anam yi mu gën a baaxee. Mhm. te yóbbuwuñ leen ñu yelwaan donc loolu nekk na quatre axes wax nga ci wàllu intervention yi ñi ci yëngu ñëpp ci wàllu taxawu gune yi dañoo xaw a bari su ma déggoo dégloo sa wax dafa mel ni ak ak yëgoo dafa des ci mbir li wolof di wax yenn kat yi xëddeen dañuy yëgoo coordination bi xëy na nga bëgg ñu gën euh, defaraat quoi. dëgg la xam nga euh, su fekkee ne que nit ñi dañoo bëri dëgg la ñoom ñëpp ku ci nekk ñu ngi def liggéey bu rafet ku nekk yaa ngi bay sa waar ni nga ko mënee wax. wante su intervention yi bëreewee te ku ne d'accord ñu wax ne ah euh, bu ñu seetee xëy na fii léegi juróomi at yi di ñëw. Sénégal fii la ñu bëgg jëm ci suñu xale yi. Mhm. lii la ñu bëgg def ak ñoom. ku yow ministère tel lii ngay def yow bailleur de fonds bi lii ngay def bu ñu xoolee sax am na ay zones yoo xam ne xëy na am nañu ay fukki intervenant ak ak lu teg. ak am na ay zones yoo xam ne kenn intervenir u fa donc loolu moo tax ñu war ko saytu bu baax ñun ñëpp ñu déggoo ku ci nee nga xam ne man li mooy sama wàll dama koy def ba mu mët waaye itam du tee euh, kële tamit li mu war a def mu def ko donc loolu loo gis rek foog ñu déggoo ñun ñëpp pour mën a liggéey bi gën a mun a. très bien liggéey bi am na solo lool sensibilisation et mais également wàllu doxalin ci loi yi parce nag am na ñoo xamante ni bu fekkee ni euh, déggunu ay ay sensibilisation ki ñaaxee nga teg loi seen kanam ndax xam nga ni ñun jëlunu suñuy doom xëy na sànni ji ci yeneen i réew sous région beeg yooyee foofu it faw jël ci matukaay loi bi tere yalwaan gi ñu doxalee ko waaye teg fa leneen nit ndax ko tere xëy na bu gàtt bi wutal ko bu gudd. waaw li nga wax am na solo wante euh, bu bëre bi. Euh, ak répression 100% répression xëy na dafa dul dox. xëy na euh, loi bi moom dë dëgg la loi bu ñu ko tegee ñëpp ko war a respecté. kooku foog naa amul euh, kenn waru ci hésité wante itam baax na xam naa am na ñu bëre ñi nga xam ne respecté wuñu loi bi xëy na ñàkk déggoo bi rek moo am. wante boo seetloo Cheikh Hamidou Kane wax na ci sànq ci affaire mutualisation lu l'aumône boobu ñuy wax. yaakaar naa ne suñ ci euh, suñu si yàlla dimbalee ba liñ ci bëgg ñu am ko mm-hmm. yaakaar naa ne phénomène bi dina wàññeeku bu baax ba pare ku nekk parce que affaire de offre la ak demande. dëgg la dañu nekk ci dëkk problème bi dafa sensible wante itam nit ñi dañuy bëgg di di di di di di sarax nit ñi. waaye it man lii ma ci daal mooy boo bëggee joxe ndimbal. demal ca daara ja xale yi nekk nga yóbbu ko fa. wante di jox euh, di di encourager xale yi ñuy des ci mbedd mi te mhm. jànguñu fa. Mhm. ñu leen di exploiter parce que loolu tamit daf ci laxasu. parce que foofu laa bëggoon dikkee ndimbal nga jox ko ki koy yellool xëy na mag ma amul euh, pexe loxo ba jotul gannaaw waaye xale tollul fu amee fu muy fekkee xale bi ci jàng la toll ci defar avenir am xëy na foofu la ñu gën a waxee situation gune gi euh, du rek ki nga xam dafa jóg pour saraxe ngir ay xarfa fu am ak mag ma ne ca mbedd ma amul di nangu waaye gune yi seen bopp quand ñu éviter ba ñu tollee ci wàllu njàng ak defar seen avenir ñu bañ a doon yalwaankat dëgg la mais boo gisee sax may wax da il faut ñu ñu euh, ñu def de la différence mm-hmm. entre nit ñi nga xam ne euh, seen seen seen waajur yi man lay blâmer mm-hmm. parce que tamit jël daara daal di ko ne ay xam laa laaj yaakaar naa ni xaw na yomb torop te itam dafa doy dafa daw yaram xale di tàllal loxo pour dem di dundalee mag loolu wax ju wax ji dëgg la mhm. wante boo gisee xale yi bëri ci mbedd mi dafa fekk am na ay waajur yoo xam ne ñu ci bëre mhm. dañoo euh, maanaam démissionné dama xamul nu ñu koy waxee ci ci wolof mais dañoo dañoo daal di banque seen loxo loolu tamit mënuñu jël yëpp sëf ko ci euh, ci kaw état bi parents yi tamit war nañu jël seen responsabilité mhm. te nag ñi nga xam ne nag état bi dafa war a dal ci seen kaw bu baax mooy ña nga xam ne dañuy jël xale yi ne leen jóg leen fajar dem yelwaan ñibbi vingt deux heures ne la indil ma téeméer indil ma ñaax téeméer indil ma euh, xaalis sàngam loolu ñooñu ñooñu dañuy def exploitation. Mhm. loolu bokkul dara ak taalibe. Mhm. ak xale yi ci mbedd mi loolu exploitation la te ñooñu yoon dafa wax daanu ci seen kaw. Mhm. ci anam yu gën a métti xam naa waxtu bi li ci des bariwul bi ma ci def ak question bi ma ci boole. Euh, bu njëkk bi mooy vertu yalwaan itam buñ ko bàyyi. parce que lu mën a xew yalwaan ci jamono yéle euh, ñu weesu am na ay vertu yoo xam ba tey sax am na ko. parce que ki nga xam ni sa doom la yaa ngi koy jàngaloo naam waaye xeetu yalwaan bi nga xam ni moom la ñu xamoon bu yàgg ba boobu tam tàggat xale la mhm. tàggat la ko euh, ci maanaam ni muy demee pour ni muy amee pour lekk ak ni muy amee pour naan yaakaar naa bu fekkonte ni foofu lañ ci yem xale bi li muy yalwaane daf koy lekk def ci biiram waaye daf koy jël di ko jox sëriñ ba mhm. loolu itam ay forme la yoo xam ne amoon na ay vertu yoo xam ni amoon na njëriñ ci formation xale bi mhm. loolu itam am na importance ñu bàyyi ci xel yalwaan gi teg ko ci benn bërëb ni nga xam ne noonu la ko président de la république waxee woon. Mhm. loolu fan lañ ci toll ak ndax loolu itam dina dal xelu askan wi euh, bu fekkente ni euh, réew mi nga xam ni ñi ñu ko dénk. li ñu leen dénk léeg-léeg ñu wax ni leneen am na ca est-ce que loolu dina dal xelu ñi nga xam ne ñooy yalwaan maanaam dajale euh, yalwaan wi quelque part di leen ko séddale. yaakaar naa ne war na dal seen xel. ndax yaakaar naa ne matuwaay yi ci war a jëm yëpp pour nit ñi rassurer leen wan leen ne que bu ñu euh, organisation bi su bés bu paree d'ailleurs euh, commencé nañ dem seeti li li njëkk li ñu njëkk def bi commission yi euh, taxawee dañu dem ànd ak délégation bu takku dem seeti principaux guides religieux yi waxat waxtaan ak ñoom ne leen fii lañ si jëm si lan moo ci seen xalaat ak expliquer leen li ci président bëggoon ñu def ko ci. Mm-hmm. wante itam yaakaar naa ne lépp lu ci jëm loo xam ne dina leeral askan wi xaalis bi kat su ma yëkkatee sama alal yóbbu ko pour ñu jox ko ndimbal ñi ko yellool dinañ ko jot yaakaar naa ne lépp lu ci war a jëm nit ñi daañ ko def ba kenn du ci am xel ñaar voilà TFM ma lay gërëm di la ndaje ci kanam tuuti ci wàllu français geeg incontournable maam Ibra Kane jërëjëf jërëjëf maa ngi lay gërëm ñu tàggoog mbokk doon ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias li ci penc mi ak TFM ñu àndoon ci wàllu waxtaan weeg soxna Rama 20h l'incontournable jërë ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.